ati jëm ca tribunal ba ma xam wakkilihi ànd ak aji déléguéem ja mooy kiliyaam yal basu dana sol al thawba tani ba al aswada bi aji ñuul yastamihu dana déglu ila difaai muhaami xasmihi jëm ci défense uk avocat adversaire am xas mu aji xuloo mooy adversaire rek mooy ngay jàppanteel yaruddu dana tontu mooy dana delloo xalaat bi aat yi ci ay wooteem yuzhiru dana feeñal xuquuqa muwakkilihi durwaay aji déléguéem muy kiliyaam yataqaada dana fayu nag ca mujj ga badala at xaab yi lay wecc ay coonaam muy pay gañ ko war a fay mu ne avocat bu tolloo ci war a def liggéeyam day ñëw ci tribunal bi daal di jël procès ba maanaam loolu ñu war a àtte ñu jox ko kayit yi mu xool ko bu baax gis na mu demee su ko defee nag ñoom ñaar ñi nga xam ñoo seq mbir ma te xëccoo kee di kalaame kee di kañu kalaame ku ci nekk day dem wut avocat boppam su ko defee avocat bii moom day étudier bu baax affaire bii nga xam ne moom la client am ñëw fay ko bëgg mu layal ko ci kanam yoon ba mu am dëgg da koy jàng bu baax xam mboolem détaillé ci aju seet nag point ba nga xam ne ci wàllu droit ci la mën a sukkandiku ba bu layee rek kii ko fay bëgg mu layal ko daal di am dëgg su ko defee nag mu daal di ñëw ci tribunal bi ànd ak ki nga xam ne mooy client mooy moo ko fay bëgg mu layal ko avocat tey sol tenue bu ñuul su dikkee day bàyyi ndegam kële itam am na avocat day kon day bàyyi avocat kee nga xam ne moo kalaame mu njëkk wax ay waxam wax la ko tax a jóg su ko defee moom mi nag mu daal tontu nag mboolem lu koo ko wax rek mu tontu wax ca nangam ak nangam jéem koo tebbi ba mu set wecc ndax rek bëgg a jox dëgg kii nga xam ne moo ko fay di client bañ ànd ñoo toog su ko defee nag am na lu client boobu war a fay avocat bi mu daal di koy fay nag avocat ba noonu mooy doxalin avocat yi ashur almuhaamaatu méccam avocat daruriyatun nécessité la lu mënta ñàkk la li izhaaril xaq ngir feeñal dëgg nga ne walaysa li tadlili hayatil maxkamati du ngir sax réeral mbooloom tribunal ba wala nga ne du ngir réeral attekati tribunal ba hayatu boobu yow boo koy bind nga koy binde am sa mu tegu ci rëdd bi te bañ ko bindee nii mu ko bindee moom téere bi mooy hayatu bi nga xam muy firi aw melo rek day firi comité di firi mbootaay dafa bari ay prix waaye ñoom daañu wax sax hayatul mahkamati jublu ci rek le tribunal jublu ci rek tribunal bi ci boppam jàppal ne hayatul mahkamati daal mooy ñuy àtte ca tribunal ba féetewoo mbir ma dafa wax ne avocat mënta ñàkk ndax am na ñoo xam ne bu ñu amul avocat ñàkk seen droit de sax avocat du ñu def ngir réeral ñuy àtte ci tribunal ba bañ jox dëgg ku amul dëgg axtarimu danaa respecté almuhaamiya avocat ba ëllësi ba nga xam ne yu saaxidu dana dimbale alxukkaama way àtte yi xalaa isdaari axkaamihim ci génne seeni àtte ci déclaré seeni àtte alxaajilati aji maandu mu ne avocat bu jub daal boo xam ne day dimbale ñuy àtte doo bu ñu àttee àtte bu jub tegu ci yoon daal avocat bi mel noonu dama koy fonk ormal ko respecté ko mu jàll si ci attaw siyan xudiya jeexalees na al amru mbir ma wa alana te déclaré xadaratul mudiri monsieur le directeur xadaratu moom baatu màggal la ki nga ne monsieur nangam nataa i jam tixaanaati nisfi sanati résultat yi examen yi genn wàllu at mi fa jaati dikk fi talihati ca bopp ba ci njëlbeen nga xassaan ku ñu wax xassaan almaaw talaamiidi safina bi gën a ràññ ko ci élèves sunu classe xilman ci xam wa dakaan ak ci ak ñaw mooy yeew wa aqalluhum te gën a néew ci ñoom maalan ci alal wa jaaxan ak ci daraja wa jaata dikk salimun salim til mu axarati ca geen ba muy ca mujj ga ya jur dana diri duyoolal xaybati bi ci tasu yaakaar koy wax sooy wal fashali ak échec échec raxma tarwati abihi ànd ak koom-koomu baayam ba ak daxmati bi ajrëy walaw sakkata doonte noppi woon na salimun salim xalaa natijatihi ci résultat ba al muxsinati bi aji jàqloo way bi naqaral xol lahaana kon woyof al amru mbir ma lakinnahu waaye moom raaxa gontu na yuhaajimu di attaqué xassaanan xassaan al awala mi premier muddayan mbir mu muy aji woote ne ànnal muallimiina naka jàngalekat yi yaatifuuna danañu ñëwante alayhi ci moom wa annahum ak naka ñoom yu dayixoona dañoo sànk rek xaqahu àqam huwa moom ci boppam mbir mi jeex na directeur école bi déclaré na résultat yi examen yi doon def tam aju ci genn wàllu at mi ku ñu wax xasaan nekk ca bopp ba di premier moom nag naka jekk suñu classe bi moo ci gën a ràññeeku ci rafet xam-xam ak rafetuk xel yeewute waaye nag moo ci gën a néew alal gën fee néew daraja maanaam famille bi mu bokk ni ki ndeyam ak baayam amuñu alal amuñu daraja googu wàllu moom ci wàllu famille ñoo gën a néew alal gën a ñàkk daraja ku ñu wax Salim nag moom baayam lim am ci alal ni mu baree doy na waar waaye nag Salim moo nekk ca geen ba moom mooy dernier maanaam manees naa wax ne yépp moo ci yées résultat ma tax mu naa Salim ñëw ca mujj ga ca geen ba di diri mbicci tasu yaakaar ak échec ñàkk am genn réussite ñàkk am genn pajug aajo mu ne nag bu Salim noppee woon ci lii ko dal tey lu mettee metti bañ a wax dara kon mu baax waaye dafa tàmbali di attaqué Hassan mi nekk premier di wax naa li mu nekk ku ñàkk ay mbokkam ñàkk moo tax jàngalekat yi yërëm ko ba jox ko résultat bu baax noonu muy premier man nag li ma bokk ci famille bu riis sama baay bari alal ñu xam ne man su ma at mi wutit su ma amoon résultat bu baax ci njàng mi itam doo wàññi dara rek moo tax ñu delloo ma ca gannaaw ba nekk ca geen ba noonu daal la tàmbalee di wax wa indama wasalat ba àggee hadihi kalimaatu yi lay baat ila masmahi xassaanin jëm ci nopp xassaan xasada jublu na saliman salim yoo aati bu ko di ko yedd fax marrate xong wajahu salimin kanamuk salim xajalan ngir kersa waxaal te mu wax ne laa yuhimmu nii man duma yitteel an akkoona ma nekk al awwala di premier awil aaxira wala di dernier fa inna walidi naka sama baay fa inna walidi yamliku dana moom koy dana am am waalan ay alal tailatan yu aji am solo muy alal yu foor yu bare bare ama anta daal yow fa innaka naka yow fa innaka naka yow bi xaajati nekk nga ci ak aajowoo ilal jiddi jëm ci farlu wal xamali ak liggéey li taxsula ngir nga am xalaa xóotika ci sab dund wa xawaa ijika ak say soxla fa ajaabati tontu xasaan xasaan ne ko xal taqilu ndax da nga fas yaa salimu yow salim ana bis ci taaxatul maali naka nekk na ci man manu alal wax daxoo moom rek ay yooxutiyaka mu jox la markasan poste wala markasan daraja moom taasam di aj ràññiku fay xayaati ko ci sa dund wa an naka ak naka yow laa tax taaju doo aajowoo ilal jiddi jëm ci farlu wal xamali ak liggéey bi xasaan déggee loolu salim di wax dafa ñëw ci moom di ko yedd ci loolu mu wax naka mu ko yedd rek salim daal di rus kanam gi soppi ko xaat waaye nag mu ñëg boole ca ñëg a tax mu naa ko man daal ma nekk premier ak ma nekk dernier xamewuma leen ndax sama baay dafa am alal ju bare bari joo xam ne du jeex baa ngi moom aajowoonu di sonnati yow nag amoo dara say mbokk it noonu faaw yow mii da nga sonn ñoom itam ñu sonn ndax ngeen am ab dund at lu ngeen mën a faje seeni soxla xasaan ne ko waaw da ngaa defee ne alal kese kese kese mën na laa jox jenn daraja ju am solo ju ñu yéem ci sa dund gee ndax da ngaa defee ne boo amee alal rek ajowootul ngay góorgóorloo ko sonn ah loolu la xasaan wax Salim tontu ko ne ko li ma laa analyté loolu yaa xasaan yow xasaan falmaalu alal ja xasabul xayaati mooy sadiitu dund ga wax wate moom yoo ay nu naa dana nu dimbale xalal wusoole ci àgg ga ilaa ala rota bi jëm ci gën jaa kawe daraja ya wayu saxilu te mu yombal la naa ñeenu alxayaatu dund ga bi ci moom alal nastatiixu la ni mane shiraa kulli ma jënd lépp loo xam ne naxtaaju dana nu aajoo ilahi jëm ci moom indoo naka moom xasan kem aw yat la si xariyatu nu ko jóg njabar maa in talmasu goo xam ne du laal xëy an dara xataa tu xawwilaxoo mbati mu ko wëlbatee wif xan muy ak dëppoog li ma ñeel la nga xam ne tu riidu dana ko namm xasaan da ko waxoon ne ko dangaa defee ne alal rek doy na sëkk ci nga am dara ji joo bëgg ci àdduna ba waxu si am alal jëlul ngay sonnati lu tee may waxe noonu loolu koy laay wax alal moom boo ko xasee am rek lépp loo bëgg ci dund gi dal di koy am muy daraja muy leneen lépp loo aajoo rek yor nga njëgg koy jënd daa mel ne aw yet woo xam ne du yetu kese daa làmboo ak njabar ca biir goo xam ne loo ko teg rek mu wëlbatil la ko mu doon la nga bëgg mu doon ko ba tax mu ne innahu xasan sihriya yet wu nekk xeetu njabar lu ñuy faral di waxee li seen waxi ni léegi kon daal moom nee na ko alal mooy lépp léppi dund gi boo ko amee rek am nga lépp fa daxika tëree xasaanun xasaan wa ajaabate mu tontu rafiqahu kamaraatam ba xaailil mi aji wax ne ko tarakutuka bàyyi naa la tataxaddasu ngay waxtaane andil maali walis alal wa fawaidihi ak ay njariñam fa daani bàyyi ma ma itam uxaddis ka ma waxtaanal la anil ilmi walis xam-xam wa kunoosihi ak ay koomam wala ay ndàmbam fal ilmu xam-xam huwa moom al asaasu mooy fondement ba ëllësi ba nga xam ne tubb naa def na tabax alayhi ci kawam a'zamu tarawaati li ëpp ci alal yu bari yi wax wate moom daruriyun nécessaire la lu mënta ñàkk la lil xusool ngir am almaali ci alal kama annahu nit nga xamee ne moom daruriyun nécessaire la lu mënta ñàkk la lil muhafazati ngir sàmmoonte xala tarwaati ci alal yu bari yi xasaan dafa ree daldi ne salim bàyyi naa la nga wax lu la neex ci waxtaan ci alal ak njëriñam ma itam nag bàyyi ma ma waxtaanal la ci xam-xam ak lim ëmb ci ay njëriñ ak i koom-koom ne ko xam-xam mën naa ne alal ja nga gën a naw muy ju bare bari la ko fondement mooy tax ñu am ko rek mooy xam-xam xam-xam a tax ñu am alal joojee ndax lu bari ci alal yi dañ koy liggéeyee te liggéey faaw mu ànd ak xam-xam bala nga am alal faaw nga am xam-xam wala boog ci kaw ni yàlla yi wërsëgale mën ngaa jekki-jekki am alal waaye soo amul xam-xam boo koy sàmmee mën ngaa daldi ñàkk alal ja kon xam-xam da lay dimbale ci na ngay amee ak boo amee ba noppi noo koy téyee soo amul xam-xam nag boo amee ba noppi lu tax nga ñàkk alal ja day daldi yomb inna waalidaka naka sa baay yaa xasiisi yow ku forke ci man lam yaxsul amut xalaa tarwatihi ci koom-koomam ba illaa bil amali ndare ci liggéey ba ashaqi bay aji tiis mooy bay aji metti wala yakkoonu te du nekk alxamalu liggéey ba mutmiran di aji meññ illaa ida kaana ndare ndem nekk na saaxibuhoo boroomam mutaalliman di aji jàng wal mutaallimu te aji jàng yu fakkiru dana xalaat maliyan ab diir xabdul xiyaami njëkk taxaw bi ay xamalin ci jumu ci jëf amal jaaxilu ndaal aji réer ja fa innahoo naka moom yaa amalu dana jekki-jekki jëf min xëyri xisaabin ci ludul xisaab maanaam ci ludul seet dara dara waxaataate lii maa mooy la nga xam ne yu sabib dana sabab la hoo ñeel ko alxasaarata perte wal iflaas akuk fayit wala ñàkk mu ne ko fi mu toll sa baay laata muy am alalam ji sonn na teyit jàng na boole ci ndax jëf mooy tax am alal te jëf jee tax am xam da koy jiitu kon sa baay jàng na son teg ca door a am alalam ju bari jooju ku jàng moom ba amul xam balaa dugg ci menn mbir dana xalaat ba xam naka la cee dugge ak naka la cee génne ka xamul nag moom day jekki-jekki rek tañaxu di dugg ci mbir yi te loola mën na koo andil perte mën na am sax ñu koy séchir di nangu ay yëfam di ko faye bor yi laxad kaana nekkoon na difaaxu xasaanin defaasuk xasaan baliixan di aji rafet ba ca dayo ba li ànnal xilma ngir naka xam-xam yu saaxidu day dimbalee daa iman ci lu sax fil xusooli ci am alal maali ci alal illaa ma ndare la nga xam ne nadara néew na kama annahu nit nga xamee ne moom xam-xam yu saaxidu day yombal al muxaafadata sàmmonte ga àll yi ci alal ji wa haasa difaax bi li défense sahala yombalal na li xasaana ñel xasaan te iyida rifaaqihi dëgëralug ay camaraatam la ñel ko fa xajuli te rus salimun salim waa tarafa te mu reconnaître mooy te mu nangu bi fadlil xilmi ci ngëneelal xam-xam dafa wax ne xasaan ni mu tontoo salim dafa rafet lool ba àgg ci dayo ba ndax xam-xam moom li ci ëpp moo lay dimbali ci nga am alal manees naa jekki-jekki nag am alal ndax wërsëg moom yàllaa koy bindal nit te lam ko ci bindal faaw mu am ko waaye alal yu bari yi nga yéem daal foo ko fekk ci njëlbeen ak farlu ci wut ko moo tax ñu am ko te it xam-xam àndoon na ca ci am xam bu ci xam-xam àndutoon xëy na du am dolli ci nag boo amee alal ba noppi boole ci xam-xam xam-xam bi moo lay dimbali ci nga sàmmoon teg alal ji ba du sànku waaye ni mu ko waxee woon léegi koomul xam googu moom lu mu am rek mën na ko daldi ñàkk bañ di ko topp ay bor moom mi nettali nag moo ne nii xasaan waxee tax na daanaka moroomam ya fa nekkoon yépp moom lañu àndal ci li mu wax ci wax ni xam-xam moo gën alal salim nag daal di rus mujj moom itam nangu ne xasaan wax na dëgg xam-xam moo gën alal almuhandisu ingénieur ingénieur xam-xamu xarala la boo xam ne dañ koy aajowoo ci yu bare bari ca la muy dellu itam day tax buñ nee muhandis rek prix mi wuute ndax buñ nee muhandisun riyaadiyun géomètre lañ koy wax bu ñu waxee nag muhandis kese moom di ko wax ingénieur ba tey it bu delloo ci yoon yeeg pont yi nga xam ne moom la ñuy liggéey ci kaw ndox yi muy tiim ndox mi ñu mën caa jaar jàll ba tey ingénieur lañ koy wax ingénieuru pont yi ak yoon yi ñu aw bu nee nag muhandisun siraayun ingénieur bu dellu ci wàllu mbay dañ koy wax ingénieur agronome ingénieur agronome bu delloo ci xarala ci wàllu tabax yooyu dool ñu tudde ko architecte mbaa ñu tudde ko ingénieur civil daruratu wujudil muhandisi nécessité amuk ingénieur maanaam ingénieur doon gim doon lu mënta ñàkk lay njëkk a wax yebb nii dana bëgg a tabax annaasu nit ña bu yootaxum seeni kër yaskunu naxa dana ñu dëkki kër ya yaskunu dana dëkkee alyaabisata suuf si koy wax jéeri ji adadun ab lim kabirun bi aji rëy mina naas ci nit ñi taxsha dana ragal alxukumatu gouvernement bi xala arwaaxihim ci seeni roo mu ne boo dee seet suuf si am na lum àttan ak lum àttanut ay nit mën nañoo taxaw bëgg a tabax seeni kër suuf sa mën naa bañ a yaatu te lim bu bare bari bëgg faa dëkk su boobaa gouvernement bi day ragal buñ bàyyee kenn ku ne tabaxe na mu bëggee dëkki na mu bëggee rek mën na andi musiba ba tax laa tas maxu du may moom gouvernement bi li ay yin kaana ñeel ku man di doon bi binaa il manasili ci tabax ay kër tont yi day joxe ijaasatan autorisation lil binaa yi ñeel tabax te la tonta deful joxe al ijaasatu autorisation ba illa binaa an ndara ci kaw ak tege xalaa musawarin ci ab plan yuqaddimuhu boobu dana ko présenté al muhandisu ingénieur ba al muhandisu ingénieur ba yu daqiqu mooy seet bu baax fii mataanatil bunyaani ci dëgëraayu tabax ba yaatani dana sonn itam bi mandaril bayti ci xoolukaayu kër ga maanaam ci boo nee ko xool jàkk rek si bët ne teg ci kaw kër gi rek na nga koy gisee dana seet noonu bu baax wa marafiq yi ak ay installation asihiyat yi ko jóg wéru yaram yu xandisu dana plan albayta kër ga wafxan mu dëppoog li xawaaxida ñeel ay règlement fanniyat yi ko jóg technique wa sihiyat ak yu ko jóg sanitaire mooy yu dëppoog wéru yaram gouvernement bi moom du bàyyi kenn nga jekki-jekki rek tabax nam la neexee du ne rek ku bëgg a tabax daal di tabax faaw da ngay ñaan autorisation bañ may la nga tabax te it bala ñu laa may autorisation da ngay indi ingénieur boo xam ne mooy xool fa nga bëgg a tabax ak na nga bëgg a tabaxee def plan bi nag gouvernement bi xool ko jàpp ne nii baax na door laa may autorisation ingénieur bi mooy xool tabax bi ñu fi bëgg a def nu mu war a dëgëre ak nu mu war a taxawe ak nu mu war a jekke boo nee ko jàkk rek xool nu mu war a rafet nu mu war a jekke ak installation yi am ci biir te aju ci wàllu wér-yaram ni ki wanag yeeg toggukaay yeeg yépp bu xoolee yooyu nag mooy def plan plan bu baax boo xam ne dañ ci topp règlement yi nga xam ne dana dëppoog xaral ak tabax ak kër dëppoonteeg juru yaram xandasatul jusóori cheni bu pont ya wa turux yi ak yoon ya wal xanawaati ak kanaal ya xandasa mooy xaral ga nga xam ni moom la ingénieur ba amee ak xam-xam ba ba mën a def liggéeyam day wax nag xam-xam ba aju ci googu wàll ci mbirum pont yi nga xam moom la ñuy tabax muy tiim ndox mi ñu mën caa jéggi jàll ndox mi ak xeeti yoon yi ak xeeti kanaal yi tajjitaasu dana jéggi al anhaaru dex ya al bilaada ay dëkk yóbbu tarru def na loruloo annaasu nit ñi ilaa xubóor yaa jëm ci seenu jéggi yu duxaa def na woo al muandisu ingénieur ilaa rasmi tasmimin jëm ci rëdd ab plan lil gis riñeel pont ba yushrifu dana contrôler al muhandisu ingénieur ba xalaa binaa il jisri ci tabax pont ba mu ne mën ngaa gis diggante dëkk ak dëkk am ndox jaar fa moo xam ne mënestu aw ca ndox ma rek noonu jàll te nit ñi mënuñoo ñàkk a demlante seen diggante kon faaw ñu war a wut faaw ñu war a wut ay pont yoo xam ne ci la ñuy jaar mën a bàyyi ko fii dem fële kon dañuy woo ingénieur mu rëdd plan bi nga xam ne noonu la pont bi war a demee ba noppi tam nag buñ tolloo ci tabax gi moom moo koy contrôler di ko xool ba xam na mu plan ye woon ña ngay doxale noonu am déet te yekkoon dana nekk masolan di responsable an hu walis pont boobu isa taxaddama ndem màbb na ingénieur bi nag buñ ko xësee féetalee toppatoo pont boobu léegi moo ko responsable bu jekkee jekki daanu mbaa dara sikk ci rek moom la ñuy topp tax tamm dana yittewoo alxukumatu gouvernement ba bi chaqi turux yi ci xotti yoon ya tukallifu dana gàll bi daalika ci loolee muhandis yi na ay ingénieur fànn yii na yuy ay technicien gouvernement bi su bëggee defar ay yoon faaw mu woo ay ingénieur yoo xam ne loolu mooy seenu wàll mu féetale leen ko handasatul muharrikaati génie bu moteur yi wala xam-xam bu xereñe bu moteur yi albuxaariyat yi ko jug woppeer muy cóola wal kahrabaiyat yi ak yi ko jug courant yadrusu dana étudier dana jàng almuhandisoona ingénieur ya tarkiibal muharrikaat yi composé moteur ya yaxtarixu dana fent sax almuhandisoona ingénieur ya almawhooboona ñu yàlla may muharrikaatin ay moteur wa adawaatin ak i jumtukaay xadisatan yu moderne fi mu toll wàllu moteur yi moo xam courant moo koy doxal moo xam li ñuy wax vapeur muy cóola moo koy doxal am na xarala gu ci aju ingénieur yi féete ci googu wàll ñooy seet nañuy composé moteur yi maanaam yan pièces la ñuy boole mu nekk moteur moteur bi loolee ñu soxla ndax xeeti moteur yi day bari te moteur oto moteur saxaar moteur leneen moteur leneen am na sax ingénieur yoo xam ne yàlla leen may ñu mën a fent ay moteur du ñam rek ci xam pièces yi ñuy boole mu def moteur waaye dañuy mën a fent ay moteur ak yeneen jumtukaay yoo xam ne yu moderne la alhandasatu alzirahiyatu mooy génie bu agronome buñ ne handasatu zirahati jël handasa laafal ko ziraha mooy tudd agronomie agronomie mooy xam-xamu lu aju ci wàllu mbay ba tey nag boo ko defee ni alhandasatu azirahiyatu maanaam mi men lay doon taxtaaju dana aajowoo al ardu suuf sa ilaa islaahin jëm ci ak defar wa taswiyatin akuk maasale taxtaaju dana aajowoo al asjaaru garab ya ilaa inaayatin jëm ci ak sonne yadrusu dana étudier al mu andisona ingénieur ya anwaaxal atribati façon yi suuf ya yajxaluunaha danañu leen def saalihatan ñi aji yiw li siraaxati ñeel bay agronomie maanaam ingénieur yi am xarala ci wàllu mbay jëmi suuf sa ci bopp lañu njëkk a seet ba xam ban façon suuf la xam loo xam ne koo fa bay fa lay gën a baaxe ak nañu toppatoo garab ya fay nekk ba dara du leen yàq bu ko defee daañu fekk sax suuf soo xam ne neexutoonu bay ñu defar ko ba ñu koo bay léegi yadrusuuna danañu jàng amradal ashjaari tawati garab ya yu kaafi xoona danañu bërinteeg alxasharaati insectes yi wala nga ne gunóor yi dañuy jéem a xam xeeti garab yi ak tawat yi nga xam ne mën a yàqal ñoom garab yi